fi fan yële passé def nañ fi benn benn descente avec euh, le service du commerce service, service régional du commerce mm -hmm. on a fait 19 restaurants à Dakar on a saisi des milliers de chicha mais xam nga lu ci xew le lendemain matin il y a eu une pression <laughs> énorme on a appelé le premier ministre on a appelé le ministre du on le ministre du euh, du commerce mm. ba ci suuf pour jéem a delloo li nga xamante ni moom mooy les appareils de chicha parce que on nous dit que oui dans la loi la loi interdit la cigarette aromatisée mooy chicha en son article 4 mais l'appareil n'est pas pris en compte. ñu ne non kon oh. jël leen fi jël leen. produit euh, bi bi. <laughs> ngeen bàyyi ko appareil mais foo ma see gis ñu séparer produit bi de son support. ñu gars yi dañuy font dañuy caaxaan. donc on s'est dit que tant qu'on ne modifie pas la ba dugal ko ci ci biir mu leer ñu bind ci chicha carrément donc du sotti donc ci loolu la ñu nekkoon ñu xëy rek dans un conseil des ministres ñu gisal ñu benn benn décret bu jàll et ce décret modifie le décret de 2016 bi nga xamante li ma wax nii yépp mu ngi ci. donc kenn xamul lu ci ne xam nga looy nëbb ba ñun mun cee teg bët ça veut dire que c'est louche hmm. bon d'après nos investigations ba tey mënuñ jot texte bi texte bi jotaguñ ko ba tey nii donc ñu ngi def ay investigations et d'après nos investigations on s'est rendu compte que c'est l'industrie qui a commandé c'était une commande de l'industrie du tabac parce que industrie moo bëgg a jàllale ay cigarettes am maanaam da ko bëgg a commercialiser c'est pas possible de commercialiser sans autorisation maanaam ni ñu koy jaayee fii c'est c'est la vente bu ñu ko jàppee dañ koy saisir donc pour éviter ça donc il faut que mu jàll ci texte donc loolu la ñu fexee ba jàllale parce que d'après nos investigations nee nañu li ñu ci changé décret bi c'est juste mettre le le tabac chauffé mooy cigarette électronique mais xam nga loolu c'est louche. texte booy jàllale mu génn ministère jógee ministère dem secrétariat général du gouvernement amul comité technique. y a pas mhm. de comité technique parce que boo amoon comité technique dañ koy yëkk mhm. parce que comité technique on convoque l'ensemble des points focaux des différents ministères donc amul comité technique ñu xëy rek mu jàll noonu donc on a fait un communiqué dans un premier temps on a vu que madame le ministre a réagi parce qu'elle a interpellé même le le le le docteur Oumar Ba coordonnateur du programme national de contre le mu ne ko je peux pas comprendre naka la texte bi te moom moo ko dem défendre ah. moom moo jaaxal moom moo dem défendre texte bi mais bon dafa jàppoon ni texte bi def na le tour et que tous les acteurs concernés joxe nañ seen observation et cetera mais elle a demandé des comptes au coordonnateur ne ko mais comment se fait-il que ce texte puisse passer sans l'implication de la société ne ko yëguma texte boobu. mais je vais voir avec le chef du bureau de la législation Samba Ndiaye jusqu'à présent amaguñ tontu donc vraiment ci loolu lañ toll ba mu am li nga xamante ni moom mooy kii comment dirais-je gouvernement bi ñu daaneel. bi ñu bi ñu waaw. Mhm. donc bi ñu bi ñu disu donc vraiment ci loolu la ñu nekk actuellement et nous comptons même faire une conférence de presse demain donc xam naa peut-être di ngeen ci jot ci loolu la ñu nekk depuis donc vraiment pour euh, poser le débat et demander à l'État de reculer. Mhm. Euh, jafe-jafe yi ñu am déjà ci cancer dafa doy sëkk sëkk sëkk. au moment où on célèbre sëkk octobre rose ñuy jàllale de tel de tel texte loolu mooy <laughs> cancer bi na yokk. Ah parce que quand même trois tuxkat yoo fi jël yu am cancer ñaar ñi cigarette moo nga jox. Uh-huh. parce que cancer ak cigarette mënoo ko tëkkale c'est pas possible. Uh-huh. le tabac c'est le facteur principal. Uh-huh. qui cause le cancer tous les cancers. tous les cancers.